man de tey dama am contentement boo xam ne yàlla rek laa koy séddaloo ak yonent bi ak sëriñ ko man soxna maam xadim Seex Murtala moo ñëw waaye dama fay sama yaay ci Ablaye Wade moo yóbbuwoon sama yaay ci Ablaye Wade dama toog ko 19 minutes bu ma ko fekkee damay am mbégte pour jàkkaarloo damay am mbégte pour dugg si mbooloo damay am mbégte pour lépp damay sawar pour yónnee fa ndax ceer na sama lépp te ñoo bokk di liggéey président Macky tey nag suñu ñëw ñëw mooy sargal daral ndax fii sa kër waaye ñun tey ñoo lay dal moom man daal damaa kontaan waaw soxna Ndeye Lo maam xarit nee na moom kontaan ba nga ñëwee keroog man koo wax ne ko ci Thierno laay liggéey Thierno moo ma defal yëpp kon tey bu ñu ñëwee yónnee pour dëgëral Thierno li muy def ñun dañ ci ñun sant nañ torop waaye di la wax nag liggéey bu maam xarit Cheikh di la wax département saa bu xëyee dana génne lu mat def ko si jàmmee pour uniquement pour bëgg président Macky Sall gañe département bii mi ngi def financement yi ci jigéen ñi mi ngi def développement te defe naa ne loolu la président Macky Sall woote mooy li ngay def ndax loolu moo leen di fii développement ak financement kon sa jigéen boobu sa sëriñ boobu nee na ànd na ceeg yow fu ngeen tàll loxo mu tàllal fa seen loxo mooy sunu présence aujourd'hui merci ma di la ma di la remercier bu baax a baax a baax te itam di kontaan ci bi ma la gisee nga tuddi fi soxna moom parce que ni nga ko waxee dafa nekkoon jigéen joo xam ne ji ma tegoon fenn effectivement maa ko yóbbu woon ci président Abdoulaye Wade yóbbu ay kaar yu bëri indil ko ko ci liggéeyal ko liggéey bu ñëpp teg seen bët ñoo ngi ñaan yàlla suñu boroom def fa nu nekk yàlla na ko yàlla xareel ajam te yéen ñii sarax bi yàgg seen loxo soo demee nag nga nuyul ma soxna xarit parce li am solo mooy booy jàppale nit da ngay yaatal te di liggéey sur le terrain te tey jii am na ñu bari ñoo xam ni yëguloon nañ leen affaire bi ci li ma jot a xam. yow lu guddi guddi neela demal nga taxawal ma loolu su ngeen bokke di liggey ci coalition bok di jappale ben nit bëgg mu gañee yow da ngay yaatal di yaatal cay dem di doli mbolo ak di bolé sen ay possibilité pour que ngeen mëna liggey ci kanam benen bi def muy def ñun li ñuy def moy di def formation dimbali nit ñi bu ko defé ñu am luñu japp

ñii ma nekkal fii Touba bu fekkoon ne amuñu woon fuñ ko teg te nekkuñoon nit ñuy yaatal kon du ndam ca moom di wax ko donc maa ngi koy gërëm di ko sant may na leen ñetti gaale Marième Faye Sall dana leen ko sampal defal leen ci li ciy tege ak ne yi koy jaay nee na bu subaa ngeen jël si ko moo leen may ñetti gaale Marième Faye Sall. loolu lii da koy dimbalee ci barke ndax nee na moom fu mu dee rek dana fa dee nee na moo leen may kàddu yi dimbali na.